الحمد لله على نعمه الظاهرة على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وصحبه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم إلى يوم دين رب العالمين أما بعد أيها المسلمون إن الناس بعد, إن بعد انقضاء موسم الخيرات والبركات أحد اثنين أولهما من وفقه الله في شهر القرآن والبر والإحسان لعبادته وأداء فرائضه ونوافله وجنبه معاصيه وسرور نفسه فأحسن عمله فمن كان هذا حاله فعليه أن يشكر ربه ويذكر نعمته ويفرح بفضل مولاه عليه ويثبت على طاعة الله ويبتعد عن المحرمات وأمر الله بالثبات على الصراط المستقيم حتى الموت يقول سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالمؤمن الحق من يحسن العمل ويحسن الظن بالله والمسيء يسيء العمل ويتمنى على الله الأماني عباد الله إن إبليس كان في شهر استومكم مدحورا وإن الشياطين كانوا مسلسلين لئلا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملهم وإنهم الآن قد أطلقوا من السلاسل فردوهم على أعقابهم خائبين بالاستعاذة بالله منهم دائما والثبات على الإسلام في كل حال والاستعانة بالله على طاعته والبعد عن معصيته والصبر على العبادة وعلى فعل الخيرات والصبر عن المعاصي والشهوات يقول الله في محكم تنزيله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أيها المسلمون اتقوا الله ولا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من الأعمال الصالحة وثاني الاثنين كما قلنا هو عباد الله من قصر فيما مضى من الأيام وفرط فيما فات من الأعوام فمن هذا حاله فعليه أن يبادر بالتوبة إلى ربه وأن ينقص نفسه من عصاب سديد يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون بوكي جلدي غيناو بني سانت يالا نيوغي دلوات دي جوندي جندي من ديف محمد صلى الله عليه وسلم دي جولي اي وا اكي صحابام di ñaanal njabootu lislaam gi yépp rawatina ñi nga xam ne ñoo jiitu woon mag ñu baax ni sunu borom gën leen a delli xéewal ak yërmande fa ñu nekk ak ngërëmam ginnaaw loolu nag ñi ngi dellu di leen ndokkeel ci weer wi ñu génn di leen ndokkeel itam ci bi ñu génn démb di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may nu nu fekkewaat ko at yu baree bari te at mu ñëw na fekk sunu gëm yàlla sunu njub sunu xéewal sunu wërsëg sunu wér yàlla na gën di dolliku waaye itam mbooleem li ñu doon def ci weeru tedd wi ñu jàll te muy ay jëf yu bari kenn ku nekk ak la ko yàlla man loo ñii woor nañ ko waaye ñii yemuñ ci woor ko waaye joxe nañ ci ay ñam def nañ ci lu baax yu bare bari ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa yàlla na yàlla nangu lépp xam nañ ne itam barab bii def nañ fi lu bare bare alxuraan riir na fi ba tàyyi waaye itam e, berndeel nañ fi jaamu yàlla yi ñi nga xam ne soxlawoon nañ ko lool loolu yépp nag yàlla na nekk ci yiwu ñi nga xam ne ñoo ko doon taxaw ñépp ginnaaw loolu nag bokk yi nañu xam ne ah, doomu aadama yi ginnaaw bi ñu génnee ci weer wi ñaar ñii rekk la amul ku leen ñetteel kenn ki mooy ki nga xam ne bi bi bi weer wi ñëwee lépp lu sunu borom bëggoon ci moom ma nga ca doon jéem kemtalaay kàttanam di ko jéem a woor wor maal ko di ci def lu baax lu man alxura jàng alxuraan ja taxaw guddi ya waaye itam joxe xéewal yi ak ñam yi ci ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo am na koo xam ne ci loolu rek la newoon ci weer wi ñu génn kon koo xam ne nag sunu borom defal na la tawféex yi nga newoon ci loolu li nga war a jëkk def mooy sant ko sant sunu borom ndax loolu tawféexam rek la nit mën na koo bëgg te du ko man ndax boo xoolee gis geesu da nga gis ci sawet koo xam ne loolu moom noo fonke weer wi rek moom noonu la ko sàggane kon nag yow mi yàlla defal tawféex yi nga mën koo defee ni mu ko bëggee wala nga jéem ci bokk ni ko bëggee li nga war a jëkk a def mooy sant yàlla ci taw féex jooju waaye nag ñu bañ a yem ci sant ko rek nañu xam ne lu baax nit wenn weer taxu koo jóg dañoo bëgg nit ki sax ci faw nañ ci sax ndax li feek bakkanam rotul rek lu baax lañ sàkku lañ sàkku ci moom kon nag bu ne weer wi jeex na rek kenn ku nekk daal di jàpp ne léegi nag man ngaa delluwaat ca na nga nekkoon weer wi dalaa war a mën a jox euh, énergie boo xam ne sa digg ak sa borom spiritualité danga ci taxaw taxawaay boo xam ne ku ne dana xam ne bi nga dugg duggagutoon ci weer wi daal bi weer wi ñëwagutoon ak tey bi weer wi ñëwee ba nga génn ci am na ak gu wér gu nekk ci yow loolu mooy tax ñu mën a xam ne kat kii kat weeram wala kooram góor gu ñu nangu la ndax soppi na ko waaye koo xam ne boo génnee ci weer yi كين دو خم بخم ياك مسون غا تيا نيك ولا ديت فينيول سي واخ فيخول سي فينيول سي جيفلن فينيول سي جامو يالا كون داي ملني ليغا رون ديف كات نوبي غا تيا ريك واي جيخيت ديمو رون ديف تا موي جي بروم بي سبحانه وتعالى واخون ني موم لا بëgg كور ديكو ديف سي نيت تا موي مو ديف كو ديف سي موم راغال يالا ملنا ني ريزولتا بو اموكو ريزولتا نك ديفنا مو ام سولو ناخ سونو بروم لعلكم تتقون لا واخ لول لا نتي ورا جيلي kon day mel ni ku ko ci jëlewul rek day mel ni résultat ba moom yow zéro nga ci am loolu nag jullit bu nekk war na ko bàyyi xel waaye nag li ci dolliku mooy xam ngeen ni euh, seytaane bu weer wi ñëwee dañ ko doon jëng bokk yi nag nañu xam ne depuis démb ba léegi seytaane tink tinkeeku na léegi kenn tënkatu ko ma ngay ànd ak sa noon yi nga àndaloon muy sa bakkan ak bànneex ak àdduna dellusiwaat na moom ñeenteel leen te doon ko xereñ ku yàlla kàttanal kooku ñu tëjoon jéngu ko daal xam nañ xam ne tinkeeku na ñépp bàyyi ko xel ba yàq gu nga xam ne moom la doon def ci nun ba weer wi daataan ñëw nan fexe ba dootu ko man ndax li mu jëlee ci weer wi moo nu moo nu koy may bokk yi nañ bàyyi xel loolu bu baax fexe fexe ba li yàlla bëgg ñu gën caa sax waaye li mu tere itam ñu fexe ba bañ ñu caa nan fexe ba daal li ñu tabaxoon ci weer wi buñ ko màbb mukk tabax ba mu ta kawee ba ñépp di ko yéem nga xëy màbb ko loolu dara jëru ko te loolu nag ginnaaw seytaane tinki nañ ko loolu da koy may doole ba nga xam ne moom mi ngi doon mer di di mattu naan baax na ba weer wi jàll rek lu ñu leen tabaxoon danaa ko danaa ko toj nanu fexe ba bokk ba ne bokk ci ñi nga xam ne seytaane dana dana man ci nan dara bokk yi nag ni ma waxoon sànq nee naa ñaar ñoo ci nekkoon ci weer wi daanaka dafa mel ni wolof sax dana koy faral wax diw ñu ne yaa ngi ci koor gi wala yaa ngi ci weer wi am na ñu bari ñoo xam ne nekkuñu woon ci koor gi waaye ñi ngi woon ci weer wi ki nekkoon ci weer wi nag mooy ki nga xam ne joxutoon weer wi ak xam kooku nag sàggante googu mu nekk bu mu ne naa xaar ba weer wi ñëwaat na daal futtiku tey daat ne weeru tël nii ak li ma gis jaamu yàlla yi doon ko ci def man ma sàggan ba defuma ci dara tey day bis ki tey dinaa tuub fas yéene euh, sax ci lu baax fas yéene sàggante li ma rawoon ma faat ma li ma faatoon ma dabaatal ko loolu nag euh, bu mu ca xaar ndax li ngay xaar danga nga xamul ba xam da ko fekke wala déet boo nee dama bëgg xaar ba weer wi delsiwaat ku la wax ne da ko fekkee kon li nga war a def rek mooy soo rëccu amee bul xaar nanga nga daal di tàmbali bis ni tey fas yéene góorlu ba nga xam ne eh, maanaam lépp lu la ci rawoon rek da nga ko mën a dabaatal bokk yi daal nañu gën a sant yàlla ñi doon góorlu waaye ñi nga xam ne itam dañoo sàgganoon nañu fas yéene futtiku laxasaayuwaat li leen rawoon lépp ñu ma jéem koo dabaatal te bañ a xaar bañ a néggandiku nañu bañ a xaar ndax nag sant yàlla moo nu war ñun ñi nga xam ne ginnaaw yërmande yàlla ak sunu njortu ci moom ñu ngi doon jéem suñ koy am talaay kàttan di taxawee guddi yi waaye di woor bëccëg yi waaye nag ñu ma koy waxoon sànq nañu delluwaat rek sant suñu boroom ci loolu mënu defal ndax ngëneel yàlla rek la nit mën na koo bëgg mbooloo mu bari bëgg nañ ko sax te mënuñ ko te xam nañ ne li tàggale nit ak yeneen mala yi ci des weesu wut jaamu yàlla sunu borom moo ko wax nee na ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci lu leen neex ñoo yées ci mbooleem li yàlla bind ñoo yées fas yi yéen mbaam yées mbaam yi kon nag koo xam ne li lay tàggale ak mbaam yi wala nga li tax doo yées mbaam yi mooy jaamu yàlla kon loolu war nga caa góorgóorlu farlu ca bu baax a baax ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu saxal nu ci jaamu yàlla saxal nu ci njub nañu fexe fexe ba defar sunu digganteeg sunu boroom waaye itam eh, niñ ñu ko waxee woon fan yii yëpp fan yii ñu démb ak tey itam nañu gën a góorgóorlu ci baalonte ak te mooy defar diggante yi koo xam ne amoon na ay ñagas-ñagas sa digg ak moom na nga dem ci moom rek ne ko baal ma ak soxlawul nga naa ko maa la waxoon lii wala maa la defoon lii day ko baal ma ak mu la baal la su ko defee ngeen ñaan yàlla baal boole leen baal baat yooyu baati wolof la waaye wolof ku de yàlla defal tawféex la ci baat yooyu mu ne baal naa la nga ne yàlla nañu yàlla boole baal loolu lu am am solo la kon nag baat yooyu nañ ko gën a baral ci suñu diggante waaye itam fas yéene koo jëfe itam fas yéene koo bañ bañ a yam ci wax ji waaye ku nekk la nga defoon sa moroom ba tax nga di ko baalu àq fexeel ba bu ca delluwaat loolu moo tax kat ñu naan tuub waaye bu fekkee ne da koy baalu àq waaye balaa bis bee dellusiwaat da nga ko fi defaat lu raw la nga ko defoon loolu itam àndut ak nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala sunu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm saxal fi jàmm fitna yi nga xam ne moo am ci àdduna bi te amoon fii ci sunu réew itam yàlla na ko fi yàlla dàq saxal fi ak déggoo ak jàmmoo ba nu mën a tabax sunu réew tabax ko ci jikko yi rafet tabax ko ci diine waaye tabax ko itam ci wàllu koom-koom ak ci wàllu social ba lépp di jàmm loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal te itam barab bu ruqe la bu xat la boo xam ne jàmm rek moo fi xaj te jàmm rek itam lépp lu waay ñàkk loo mën a am ci àddina ni ko sëriñ Touba naan waxee soo ko soo am soo ñàkkee jàmm rek da nga da nga jaay loola dem wuti jàmm kon nag nanu ñaan jàmm di fi sax di ñaan borom bi subhanahu wa taala itam mu defal nu ba bu ëllëgee weeru koor wi ñu génn dinu seereel ca sunu kanam sunu borom te dinu tinu ni nga xamee ne alxuraanu karim ji moom itam ñi ñi ngi ñaan moo ñoom ñaar ñu àndandoo dina tinu ci si kan sunu kanam sunu borom te koor gi yàlla bu mu doon aw lay ci nun yàlla bu mu doon aw lay ci sunu kaw nan doon sunu lay te bu mu doon aw lay ci sunu kaw yàlla mën na ko ñoo ngi ñaan itam ci barke alquranul karim ci bal barke weer wi ñu génn di weeru alquranul karim sunu borom dimbale sunu kilifay diine yi te ki nekk ci bopp bi di Cheikh mun Mountakha sunu borom gën koo dolli kàttan gën koo dolli wér waaye mboolem kilifa diine yëpp itam ku ci ne rek li nga mébét ci diine ji suñu borom defal la tawféex nga mën koo def ak foo mën a féetee ak foo mën a bokk waaye itam di ñaanal mboolem réew yi nga xam ne am na réewum julit moo xam ne mi biñ ci fan yu mujj yi ci koor gi di fan yi gën a tedd ci koor gi jànkoonte nañ ak jafe-jafe yu méttee métti te mooy Palestine gis ngeen la fay xew ñu ña tàll suñu loxo suñu borom ci barab bii di barab bi nga xam ne barab yi gën a teddal ci la bokk ah ñu ñaan sunu borom mu teggi leen natt yooyu te defal leen jàmm te may leen eh, ñu am ak dal ba mën a jaamu seen borom ni ñu ko bëggee mën a tabax seen réew yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def